non la ñaanal ak njabotam ñaanal Cheikh Mamadou bassir mi nga xamne mo moo jiite comité d'organisation bi waye and ko Serigne Ousmane Mbacké Gaynde fat mi nga xamne moy coordinateur coordonnateur gi di nuyu bokki julli di bokki taalib yi nuyób lislaam muy alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di yëkëti kaddu nuyo ci turu comité d'organisation bi nga xamne Serigne Cheikh Marème Mbacké moko ko waye serigne Mbacke Madina di coordinateur bi ak abdullah hat buso mu talib ak serigne Ahmadou ndjay ngeran mbok mi wax ak yéen nak ñu gën ko xam ci ibrakan wilaya mu dëkk fi ci Touba bokk ci commission organisation bu magalgi gi waaye jiite sous commission bu ñuy wax accueil euh, restauration bi nga xam ne moo yor lépp jëm ci togg ak yekk ci màggal gis waajtaayu restauration mooy balaa bu bis biy jub si da nga toog xool li nga war a toggu gannaaw bu accueil xamee li ñuy dalal ci aw gan ba noppi ca lañ def sunu programme xam ne kon gannaaw accueil nee lii lay dalal te nii la koy dalale kon ñun war na nañu xam leen war a toggu pour ñu mën leen ko séddale Euh, kenn ku ne xam ne ne jamono jii jamono la joo xam ne euh, yàlla na ko fi suñu borom jëlee muy Covid 19 bi nga xam ne moo lëmbe réew mi waaye yàqut walla mu changé ci suñu programme dara. nen ko baaxoo woon a defee ci suñuy waañ noonu lañ koo defee mu jëm ci restauration muy diggante xar ganaar euh, ak jën lu ci nekk lan ca war a wut. wut nañ ko wutin wu doy yaakaar naa ñu ngi tàmbali togg démb quinze safar incha allah noonu lañ fas yéene di toggit ba dix-neuf safar ba tax na fii ñetti waañ ñoo fi nekk waañ soxna Fati Xari Lo moom sëñ Mbàkke Sonlo moo ko jiitee waañ deux soxna May moom sëñ Mbàkke Sonlo moo ko jiitee waañ trois soxna Cubba Baabu moom sëñ Mbàkke Sonlo moo ko jiitee waañ quatre soxna Biige Njaay moo ko jiite ak waañ cinq ma nga Daaru Marnaan waañ six soxna Xadi Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Sonlo ci kër yaa soxna jaxate gi ci yoonu uh, jannatu mooy juróom-benni waañ bu dee ci pour yi ñaari pour lañ am yoo xam ne ñooy lakk xar yi benn bi sëñ Mbakke Juuf moo ko jiite benn bi sëriñ Ali ñaan sëriñ ñaan muy dibiteri bi ñuy wax yëral foofu la ñuy ñoom ñooy lakk di indi fii ci ci kër sëñ Tuubaa ci jumaa ji bu dee sëñ Mbakke Juuf mooy lakk yamala ci kër sëñ Tuubaa gi ca Daaru Manaan noonu la wàññi séddale ko ko xam wilaaya xam ko nag ci prévation ba taxna euh yag nañ ci dox ci lolu fiñ toll ni ma lay wax dem bala nga dugg ci biir da nga raxasu bo duggé da nga laal alcool masque ya nga fa carton masque waañ wu ne yaa ngi carton masque la nga yor ci masque du fi jeex mom wañ wu nekk la nga yor ci masque du jeex amna bu bu buñ ko wax ñu ne ma wa lan moo tax nga diko wax tëg masque sama masque a ngi nii xañ na média bee tax mais sama masque a ngi nii ak man ba ma teel koo fa prévoir euh, euh xam nañ ne ci jamono jooju lan tollu Euh, ndax li nga xam ne moo moo am nit ñi luñ xamut la waaye luñ xam def ko ndax ki ñu jógee ku jóge ba Gàmbi wala nga jóge ba Ndar wala nga jógee ba dakaar takkal masque du sa problème raxasul euh, ak saabu du sa problème laalal alcool gel du sa problème te xam xam li ñu leen di def loo bu ci jëkk rek seen avantage la ndax ku naan la sangul sa taar la bëgg. di sant na bu baax. Euh, Serigne Bada Diop ndax depuis première safar ba léegi noonu moom noo bokk nañ ci kër gi bépp xew-xew bépp manifestation bu fi am vraiment mi ngi koy jël kon ñu ngi leen di ñaanal di leen encouragé di wax ne seen site bi yàlla na dem ba doonub télé. ñu ngi leen di sant bu baax euh, ñu ngi jéggalu képp ku dégg lu ci bokkut nang nu ko jéggal waaye di nuyu nag bu baax suñu bokki organisateurs yi ñu bokkal liggéey bi rawatina nag waa daayira Muxaddamatul Xidma nga xam ne benn daayira la boo xam ne moo wilaaya benn lañ duutul ne ñaari daayira té yalla ak sëriñ bi rek a nu ñor. sëriñ Cheikh job Ndigal ñu gis né yow ya nekk ci walu xéewal yi ñu bëggal leen laaj rek seen taxaway ci magal 2020 bi nan ngeen ko préparer waaw ñu ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp ñu magal ci jamm té te waat ci jamm ak salam barke sëriñ Touba wa comme niñ ko doon def baaxoo def rek muy sa yu accé ci waxtu wi muy safar ñu denku ñu li nga xamanteni moy walu top to gan ñi ci résidence Khadim rasoul bi. te loolu mel na ni bi ñu ko yaa dalee dénk ak léegi xaw naa def ay fan ndax ñu ngi ci fukki at ak ñett yoo xamante ne ni wilaya lañuy ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu restauration bi fii ci biir kër gi yàlla dogal tàmbali nañ suñu liggéey depuis quinze safara bi jàll lañ tàmbali suñu liggéey war koo jeexal ci la vingt safara incha allah rabbi buñ la waxee ñii yore wàllu bernde yi ñan la nga ne waa kër sëñ Cheikh Gaïndé Fatma waa kër sëñ Mbacke Soxna Lo loolu du la jaaxal ndax kenn ku nekk xam na ne teraanga ak wàllu bernde moom yaakaar naa ñooñu ku leen xam-xam ko ci ñoom ñun nag njabootuk ñooñu lañ foofu lañ bàyyee ko kon bu sëriñ bi amee yaakaar ci ñun ba dénk ñu lu jëm ci wàllu bernde yi xelut nit ñi ak ñi xam fi ñu bàyyee ko seen xel war naa daal ndax ñi ñu tànn dénk leen bernde yi donte ay xale lañ waaye ay xale yu ñu yar la ay xale yu ñu tàggat la ay xale lañ yoo xam ne itam euh, seeni loxo set na ba jàpp naa ne war nañoo mën a bokk ak mag mi loolu it di ci wone rek ne Serigne Touba moom ñàkkul dara te boo duggee ci kër gi itam lépp loo xam ne ni soxla nga ko war nga ko mën a am kon taxawaay boobu lañ ci am waaye soñ nañ nit ñi bu baax a baax ci takk masque yi ak itam barab yi eh, ñu respecté ko nañ ko war nañ ko war a respecté loolu soo duggee ci apartement yi appartement boo dugg ka taxaw ca buntu ba ba ci buntu kër gi rek ka fa taxaw boo duggee na defal sel pour nga laal ko gan gu ne fañ la dalal falal sa li di fekk si lépp fala lay fekk xëy na soo gisanteeg sa morom moom yow yaa ko su la ñu jegee itam xëy na yaa ko sàkku waaye ñun jël nañ mesure barrière yi nga xamante ne xëy na moom la ñu wax pour ñu jëf pour ñu jëfandikoo sant yàlla bi ñu sëriñ tubaa tànnee ñu bokk ci ñi muy liggéeyloo yombul bu ñu ko sëñ tubaa defalee nag dañ koy sant bu baax a baax di santit suñu jëwriñ yi nga xam ne ñoo suñu kanam lu mel ni sëñ ñaan mi nga xam ni moom moo jiite commission bi man ma topp ci kawam ba pare mu jël responsabilité yëpp bàyyee may def lima ma war def te du sax gëstu ci li ma war a lan la kon lolu kóolute la ak yaakaar sëñ bi moom matal na lépp doomu matul kon ñu ngi jéggalu ñëpp di di jéggal ñëpp di wax salaamaaleykum wa